Eh, marché Mbacké vraiment yàgg na fi yàgg na fi trop trop trop Euh, ñu jàpp ne ku ñëw mu tane rek ku ñëw muy gën a métti mi ne nii yàlla ji dafa lay rek gis nga ko fi ne nii nit ñi amuñu fu ñu jaar mi ngi xat aussi bëri ndox nit ñi amuñu fu ñu jaar boo duggee ci marché bi wallahi boo xoolee situation marché bu sa jabar ndugg si woon sax boo fekkee doo lekk ndax salte gu marché Mbàkke bi salte bëri ndox amuñu kenn ku ñu ci jàppale amuñu kenn fu ñu ko jooyee vraiment loolu daal ñu ngi ciy jooy bu baax a baax baax di ci soñu monsieur le aussi di ci soñu état pour ñu gën cee góorgóorlu jàppale surtout citoyen sénégalais yi nekk ci marché bi di xëy si ñenn ñi si ak ndugg ni mu demee ci lekk doomu aadama li muy lekk ci biiram ni mu kiiyee vraiment war na mën a set war na mën a rafet daal vraiment. jafe yi franchement parler bëri na daal waaw waaw comme xam nga période hivernage bi ñu nekk itam euh, bu ñu sañoon comme euh, mesure yi président jël aussi itam dëkk bi ñu désencombré ko ba pare dëkk bi aussi daal di set. ba pare itam aussi itam li nga xam ne ni moom mooy tataa ndox yi ñu mañ ko fay dindi mais imaginel bu fekkee ne dëkk bi dafa salte yenn façon salte yi surtout biir centre ville bi nga xam ne ni ñi dem marché ñëpp fii la ñuy converger wu marché bi salte amul nettoyage ba pare wëlbati ko encore mu taw mu euh, loolu lépp nekk benn taat boo xam ne nii itam mën naa indi ay ay ay musiba si population bi ci si wàllu hygiène bi si wàllu wàllu wàllu wàllu aussi itam affaire affaire sibru feebar yi parce que itam dina bëri ay yoo ak yeneen ak yeneen daal. waaw Mbàkke de mooy comme li ngeen fi gis nii rek mbedd yi taa yi ci loo xamante ni problème bu fi yàgg la depuis ñu juddoo ba léegi mi ngi fi nekk te Mbàkke bokk na ci fi mu ne dëkk yi nga xam ne dañ leen tudd ci Sénégal. kon il est temps niveau bi mu nekk euh, mu weesu ko daal vraiment gis nga mbedd yëpp bu nawet bi ñëwee day taa ba dañuy am problème mu sax suñuy client mën a fekk si fi ñu nekk. ak jafe-jafe yi fi am bari na bari na trop ndax euh, boo seetee mbedd mi li ñu fi gën a am jafe-jafe nga xam ne bu dul taw jafe-jafe bi ñu fi faral di gën a am mooy alkaati yi. te ñuy ñëw fii yenn saa yi di ñu sonal sonal boo xam ne daal doy na war daal boo gis nga fii nekk ñëpp ay jigéen lañ ñëpp ay néew doole xale yi fi nekk yëpp yi nga xam ne nii ci bi la nekk bon gisuñu seen bopp ci marché bi parce que marché bi dafa dee marché bi moom wax dëgg fa yàlla ni mu war a mel melu ko ni mu war a mel melu parce que dëkk bu toll ni Mbacke tey normalement war na am centre commercial marché boo xam ne ku ñëw xam ne lii mooy marché central de Mbacke ku fa ñëw xam ne des fois nit da lay romb fii dox ñëw ba fii gan ñëw ba freiné ji man ne ah bon fii la marché bi yem retourné waat xam nga tamit loolu tamit dafa kii ci Mbacke te Mbacke dafa am ginnaaw war na am marché boo xam ne réellement ñi fiy yëngu yëpp war nañu mën a gis seen bopp te dëkk bi tamit war nañ ko mën a gën a taxawu daal ndax Mbacke moom dafa dellu ginnaaw dafa dellu ginnaaw définitivement commune yi ma xam Mbacke yëpp Mbacke ci gën a wax dëgg fa yàlla li ma gis nag man laa wax waxuma leneen li ma gis rek laa wax ndax mbaake tey boo ñëwee mbedd yi wër marché bi yi nga xam ne ñoo collecté marché bi amul foo mën a duggee ci biir marché bi boo duggee ci biir marché bi fii bu dee liggéeykat nga heure bi doo liggéey non non sooxee na bu baax a baax a franchement parle parce que man gisatuma fi oto mbalit boo xam ne mi ngi war di jël mbalit yi benn oto moo fi nekk te léeg-léeg day toog ay jours jours dafay panne te yaakaar naa benn oto mbalit mënta évacuer marché bi bay dem si koñ ak biir centre ville bi parce que lii buñ ne laa fi ma toog bu ma ne laa biir centre ville la franchement parle da naan non lii a a nekk donc Mbacké a am espace d'air boo xam a wone figure a xool mais mais dépotoir yi mënoo xàmmee centre ville bi mënoo ma c'est n'importe quoi aussi désencombrement bi bëri na te y a yaa a y a beaucoup de yoo xam ne nii franchement parler itam ñu ngi doon noonu ñaan maire encore mu mu mu jëm see mu jëm see gëstuwaat gën euh, taxawaat si taxawaay boobu gën a mat daal mais moom jàpp nañ ne sooxee na bu baax a baax. non mairie bi nag ci côté ndox bi moom xaw nañ fee am euh, faible daal parce que ni si war a jàppee jàppee wuñ ko si te li ma ci gën a métti mooy ndox mi. fi muy taa foofu daanaka mën naa ne économie Mbàkke bépp fi la nekk muy ci marché bi te Mbàkke amul luut marché bi boo xoolee amul beneen milieu boo xamante ni tey jeunes yi Mbàkke ñi ngi fay dem ci daan seen doole du usine du fenn ci marché bi rek la te marché boobu noonu toujours moom mooy taa waaw kon maire bi moom mën naa ni liggéeyul. solution bi mooy que ne jël ci ay engagement dem ndéem bu amul lu mu ko defaree xam nañu dëkk état moo koy defar mais mu accompagner wu nangu ko ko dimbale aussi moom it pour mu mën a jàppale sénégalais parce que moom la ñu jiital ci réew mi mu ñu fi dara def dara sans moom loolu la demee waaw ñu ngi koy soññu bu baax daal pour mu gën a góorgóorlu merci beaucoup. effectivement responsabilité mairie la parce que depuis que depuis que décentralisation bi mu effectué ba léegi donc mooy yi nga xam ne nii yëpp état bi da koy war a def da koy jaaral si mairie bi donc kon ñu ngi invité le maire. par rapport ak euh, li nga xam ne nii mesure d'urgence yi parce que affaire euh, euh, salubrité ak problème désencombrement ak ak surtout période hivernage bi ñu nekk curage des eaux aussi dafa nekk ay mesures d'urgence yoo xam ne nii bu doon état bi la daan daan décréter plan d'urgence donc comme que plan d'urgence yooyu ORSEC yooyu amul kon donc li nga xam ne ñi ngi ñaan parce que on di gouvernance locale kon li nga xam ne nii ñi ngi koy ñaan mairie bi mooy que aussi te mu mu jël mooy affecté ko. bon li ñu sàkku ci moom mooy. mu liggéey comme doomu Mbàkke la te dañ ko fal te ñun biñ koy fal sa xamuñu ko man Abdou Mbàkke Ndaw xawuma ko woon man biñ ko falee ba pare laa koy soog xam kon xam nga loolu lu rëy la ay nit fal la te xamuñu la dégg sa tur rek fal la bëgg la fal la kon ñu ngi koy ñaan bu ñu mënee jàppale mu jàppale ñi jàppale aussi jeunes yi Mbàkke yi ñu toog Mbàkke parce que boo xoolee Mbàkke aussi jeunes yi bari dem nañ man mii si ñu dem laa bokkoon mais yàlla moo ma dimbale ma ma demoon am lu ma jàngi ñëwaat ñëw investir fii sama dëkk toog fi mais nañ jàppale jeunes yi Mbacke ñu liggéey parce que chômage bi bari na fii ñàkk liggéey bi bari na Mbacke boo jàngul wala amoo capital pour nga liggéey maanaam problème la te loolu lépp ñu ngi koy sàkku maanaam ci mairie bi.